ginnaaw bi mu doon tekk mbooloo mi ci ndaje CRD bi nga xam te ne jagleel nañ ko ziyaara nga jega bi gouverneur di waaru Ndakaaru di Alhassane Sall daal dina yëkkati kàddu ndaje bi daal di tàmbali kon ci ay ñaan ci les nations mooy

ci la nag jot ndigal lolé ni ko ni genn euh ba muy génn wax nañu ne ni guddi na te xamu fu mu jëm waye yalla sula sula sula sula su la ndigal mo lay tété ba nga ag fa nga jëm wax nañu ni jaar na fu nek jaar na ciaré jaar na bon jaar na mbaw ba ex ci alla bob nga xam tane tay mom lañu tuddé malika euh, donc ba mu fu ñëwee def na fa ñetti fan ñetti fan yoy nak mom lañuy

waaye léegi tey jii suñu demee bay ba koy méngale ak appel nga xam te ni kon événement bu am solo la euh, ay centaine centaine de milliers de personnes ñoo fay ñëw voire le million ndax àlla la neexu la feesal mais li ma gëm mooy su doon ab dëkk la dëkk bi dina fees kon loolu moo indi <coughs> ñu ñu commencé di ci CLD di CDD ba tey yàlla daf loolu mooy historique nga Nguédiaye di leen jotal nag monsieur le gouverneur nuyu xalifa bi ak ay rakam yëpp ak njaboot yi ahlu bayt yëpp ñu ngi lay jotal seen nuyoo seen ngërëm te xam nañu sa taxawaay ndax du guleet defe naa ne ko xam communauté Layène bi nga fi nekkee ba léegi xam na la ci ràññee na la ci ci noonu lañ daldi di liggéey bi préfet bu Kër Massar daldi di dellu siwaat ci ligne daal di woon tënk ci comité de développement départemental bi ñu amaloon ci ñexteelu weeru juin atum 2023 laata nag ñuy daldi di jébbal kàddu gi service yépp yi nga xam te ñooy daal dugal seen loxo ci ziar nge jege rawatina nag ci li nga xamante ne moo daal di yitteel kaaraange gi te commissaire Khady Diouf mi nga xamante ne moo jiite commissariat police bu Malika am ci taxawaay bu am solo. mais service yi kenn demul ñu daal di des. ñuy sant yàlla bu baax euh, point yi nga xam ni évoqué nañ ko ci CDD bi. Euh, fàttali ko ci CRD bi daanaka point bo ci jël indi nañ ci une réponse bu nga xamni ku ko déglu xamni réponse bu yenu mana la donc may inviter suñu service yi kon euh, ñu ñu mettre en application li nga xamni retenir nañ ko ci CRD bi muy liggéey bi nga xamni ni war nako liggéey bala bés bi euh, taxaway bi nga xamni ni war nako taxaw Euh, couverture sécuritaire bi war ci ñu dénk ko police mu koy coordonné ànd ci ak euh, sapeur pompier mais également la couverture médicale bu nga xamni ni région médicale mom moko yor and ci ak brigade régionale d'hygiène and ci ak euh, Sonaged Sonaged nga xamni ni déjà <laughs> ku tudd Malika mm. xamni ni ñoom it foofu seen fief la donc kooku moom jarul sax may ci wax dara kooku moom daanaka c'est naturel mm waaye it euh, di rafetlu euh, taxawaay bi nga xam ni Eaux Forêts taxaw na ko euh, ak élevage Sen'Eau je crois que pour yokk la pression mais également indi ay camions citerne. DMTA également appui en chaise am ngeen ay matla voilà donc yéen da ngeen la ñuy chaise ak ay matelas maintenant pour bâcher dina ko poser ministère de l'intérieur euh, pour ñu su ñu xamee quantité bi ngeen soxla rek je crois que ça ngeen wax dinañ def lettre bi mu mu dem ci ministère de l'intérieur ci xamna ni ne bu demee dinañ ko satisfaire alors euh, région médicale wax naa ko donc euh, Sonatel Sonatel également donné des assurances que li nga xamni ni bind ngeen ko ci kayit bi inshallah allah ñun après dinañ ko formaliser mais déjà ñoom euh, nangu nañu pour and ci ak yéen alors ki nga xam ne moo yor liggéey boobu jokkoon na ak moom je crois que foofu tam duñ ci am benn jafe-jafe li ci des nag euh, nga xam ni c'est des services yi nga xam ni amuñu démembrement bu faral di ñëw ci euh, lu ci mel direction protection civile euh, yàlla def na suñu ministère la bokk donc kooku duñ ci am benn problème dinañ ko eggale lu ci mel ni Dakar dem dikk ak lu ci mel ni délégation générale

fii ci gouvernance bi tam ñi ngi taxaw di leen déglu lépp lu ñu war a taxaw rek incha allah dinañ taxaw suma adjoint bi moom mooy suivre question yu mel nii donc moo tax mi ngi ne toog moom aussi après def compte rendu bi di gërëm nag euh, ci maire ci engagement yi mu jël pour accompagner nos services waaye tam ci terrain bi nga xam ni joxe na ko pour que ñu mën fa def commissariat de police mu nekk commissariat police bu malika voilà donc ci gàttal euh, li ñu mënoon tirer comme conclusion gërëm ñëpp di sant ñëpp ci seen taxawaay seen teewaay di gërëm presse bi également ci taxaw bi ñu taxaw pour assurer la couverture aussi bien la presse privée ñoo nekk fi que presse bi nga xam ni moom mooy dépendre ci état bi. comité d'organisation bi wane ni daal dina kontaan ci dogal yi nga xam te daal dinañ koo jël ci ndaje mi. li ñu fi gis ak li ñu fi dégg euh, dal na suñu xel. Euh, ndax dafa dama nga xam saa su ne damay wax ne que ni lii routine la ci nun ndax yàgg nañu ko organiser waaye nag engagement bi ma gis bi yoon cawarte gi ma gis bi yoon xër bi ma gis bi yoon mën naa yaakaar ni que ni dana nu am pèlerinage bu mucc ndax kenn ku ci nekk eh, wane nga sa cofeel ci mbir mi wane nga it sa professionnalisme ci mbir mi kon war nañu yaakaar ni que ni bu ñu yàlla dimbalee war nañ ci dugg ak jàmm génn ci ak jàmm e di wax ni rek e di la wax ni comité bi yëpp ak dëkk bi yëpp ak communauté bi yëpp amel nañu la ngërëm e ndax du guleet yàgg nga taxaw ci communauté bi yàgg nga défendre communauté bi yàgg nga liggéeyal communauté bi ndax ku wax Dakar ku ñu ko waxee sànq wax communauté Layène euh, xam nañ la bu baax miin nañ la bu baax kon ñu ngi lay gërëm bu baax ci sa taxawaay euh, di gërëm it euh, le préfet Kër Massar damay wax ni que ni nit su ngeen jëflantee benn yoon rek war ngaa xam ban nit la. man day maa ngi koy dog a gis keroog ci Kër Massar pour la première fois mais taxawaay bi ma gis mu am ko euh, mbëggeel gi ma gis mu am ko ci li muy def am naa yaakaar ni que nii pèlerinage bi bu dee ci moom kese ragal naa ni que nii dina baax ba jéb ba passé suñu njort kon moom it dinañ la seeral que ni ku am taxawaay la ku bëgg li muy def ku am yéene ci li muy def kon Sayid ñu ngi lay gërëm bu baax ci sa taxawaay di gërëm it sa sous-préfet moom moom sunu dëkkandoo la xam nañ ko bu baax miin nañ ko bu baax mu bokkee ci nun ndax eh, ndénkaane la ci nun kon moom it su nekkee fii war nañ ko jotal sunu ngërëm gis nañu taxawaayam bu baax a baax a baax ci Malika Maguna wax na ko sànq taala it répété na ko problème de sécurité euh, dañ ko am Malika teyit wax nañu gàllankoor moy commissariat bu xat ak logistique bu logistique bu manke bu bu bu xawul doy man sax wax naa keroog ci CD day man len nun sa communauté bi ñu ngi xol naka lañuy def pour que suñu amé ben auto sax bu len mëna jappalé nu jappalé len ko ndax nu mëna a liggéey seen liggéey mëna a mën a euh, ay la yewen nak bima déggé sax euh, taala mu wax lolu que ni amna terrain bu muy joxé pour ñu def ko commissariat lolu dañ koy rafetlu macha allah. kon nag na ci gaaw yee nit ngeen def ci li ngeen ci war a def ndax loolu mën a yéwén ndax sécurité bi mën a jëm yéwén ci euh, département Kër Massar euh, nu ngi gërëm ñëpp nag di sant ñëpp di ñaan yàlla yàlla mi nga xam te ni que ni moo nu bàyyi woon tey jii ba ñu fekkee ndaje mii yàlla moom mën nañu gunge ba ñu fekkee événement bi dugg ci ak jàmm génn ci ak jàmm ñaan yàlla it. mu bàyyi nu fi ba nu fekkee déwén mm-hmm. kenn bañ a manqué ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina daal di fàttali ne ziyaara nga jëga gi mu ngi daal di ame ci buñ tam xarité ba ci ëllëg sa rabbil alamin allahuma najina ma naaji allahuma najina ma naaji ولا تهلكنا مع الحالكين صرفا صنع وملك دائما المرسلين اللهم سبدنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بركب عليه فينا يلا فجأة